الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi fii nga xam ne mooy kër moolaa al xalifa al muazzam moolana cheikh ahmed al tijaani al xalifatu al aam li saahibil faydati tijaani ajadahullah wa nasara ñu ngi fii ci këram tey nag jamiyatu ansaaru diin bu Kaolack département ñoo ñëw ànd ak yéen tey ñëw fii ci kër xalifa bi ni nga ko baaxee di def rek saa soo xam ne nii li nga xam ne mooy seen liggéey yi nga xam ne ak projet yi ñuy teg saa su amee ak yokkute rek dinañ ñëw rendre compte ki nga xam ne mooy xalif général de la fayda tijaaniya ci njiite cheikh sida ali ibn cheikh alhaaji omar roqi ñang ñu gën ko xam ci Cissé Niang mu and ak euh, ñi nga xam ne ñooy membre ñen ci membre bureau jamaiyatu ansaruddin ñu fekk fi nak nga xam ne moom lañ toftal porte parole pay bi ki yor kàddu pay bi muy fadilatul ustaz Cheikh abubakar Omar Roq Niang tabarakallah kon mbokk yi ki ñu seet shahidtu wala ulfa li ahdiya ankudu fityanu Medina bay ci tabaski gi ñi indi len ay xar yo xamne liñ leen wax bu ngeen demee mom ngeen fay fekk nek ci buntu alimentation babakar jank ci ciofal ci njëg yu yomb ñu indi leen ay xar ci race bu mu mënti doon alfidiaanu Medina Baye ñu ngi ci coof ak ci alimentation Babacar Dianka li ci gën a neex moo di alfidiaanu Medina bàyyi nee nañu xar moo jënd ñu jox la la nga koy toggee maanaam nduguma ci soble ak yu ni mel ku ci bëgg la la gën a leer man nga woo Mouhamed Thiam ci 77 914 57 84 wala Mamadou Bamba Mbeng ci 76 186 76 92 alfidiaanu Medina Baye nekk ci buntu alimentation. fondation Babacar Jànq ci coofak indil leen ay xar ci tabaski gi ngir neexal seen tabaski alayhi salaatullahi thumma salaamuhu fa taqbalu amdaahi wa taqbalu man yaxki bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci jëmmam di leen ziyaare ci barab bu sedd sell bii nga xam ne Eh, kenn ku nekk ci ñi bokk ci faydu bi rek occasion bu mu am pour agsi fii rek war na fee mën a ziare Baye Niass kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ci buntu Maulana Cheikh Ahmad Tidiane Khalifa ci buntu Maulana Cheikh Ibrahim jotaay bi jàmm rek la dañoo ñëwoon seet si sëriñ bi fédération Ansaarud-Din département Kaolack moo ñëwoon seet si sëriñ bi ci ndigalal ay njiitam ay kilifaam ba ci international bi eh, ci lan. ci ay programme ay liggéey yoo xam ne fédération bi moo ko warlu woon ci xadara bi ci ndimbalal sëriñ bi ak jàppaleem bañ agsi ci war a am yuñ ci war a def euh, ñu nuyu woon sëriñ bi ñaan ko ndigal sàkku may ñu opportunité ñu ziyaare ko euh, feggoo ak moom sàkku ñaan ci moom waaye jëlaat ndigal installation suñu ndigal ci liggéey yi nga xam ne moom moo ñu ko dénk ci xadara bi ku nekk xam na ne jàmm yàlla bi xew bii di wax lu jiitu muy jiite jamitu ansaar dina am na lu mu doonoon ci cabinet xalifa bii te loolu dara dindiw ko ba ba si tey kon dafa mel ni ñu ngi teew ci kanam sëriñ bi di ko présenté liggéey boo xam ne moo ñu ko sant moo ñu ko dénk ñi toll ci foo xam ne war naa xam ni muy doxee war naa xam fiñ ci jëm war naa xam sax luñ ci yaakaar ñi ne woon nañu bëgg a dajeeg moom waaye ku ne xam na ne jamono bi kenn ku nekk ki nga am mu gën a foor ci yow def nga ko ni jamaa denc ko di ko yaxanal di ko sakkanal surtout circonstance bii ñuy wax Covid nga xam ne permettre mag ñi sax daje ndaw ñi permettre sax ndaw ñi daje sakka mag ñi ak ndaw ñi kon ñuy jàpp ne ñu ngi dajeeg sëriñ bi tey mu nangu woon jotaay bi ñu dana ko dajeeg ñun euh, heure bi ñuy wax xëy na mu ngi ci beneen liggéey boo xam ne xadara bi yëpp ak faydu bi yëpp la ci taxawal waaye boole nañoo làmmiñam boole ñoo jëmm joo xam ne ñun jàpp nañ ne sëriñ bi lañ toog ak kon sëriñ bi ngi lay ziaru sa Babacar yow ak Cheikh Baye bi nga xam ne yéenay liggéey ci ci porte parole bi euh, uutu ci Cheikh Mahi Aliou Cissé ñu ngi rafetlu dëgg dëgg di wax ne tamit doy nañu ngeen recevoir ñu ci turi sëriñ bi loolu moom ñu ngi koy gërëm euh, li ñu indi tey lenn la dañoo amoon benn lettre de mission boo xam ne moom laa doon présenté noonu ci am Ansaaru Diin mooy lettre bi nga xam ne man. Euh, Ansaarud-Din national bi loolu la ma confié ne mooy suma rôle mooy suma cër ci Ansaarud-Din ci Médina man lañ chargé chaise bii lépp lu fi luñ fiy def loo xam ne Ansaarud-Din moo ci war a am taxawaay man maa ko war a piloté ak fu luñ ko mën a defee kon dafa mel ni liggéey bii ñu bëgg a sémb Ansaarud-Din département moo koy def waaye danañ ko wax ci Ansaar au niveau Ansaarud-Din yëpp département national ak international kon tey dañoo ñëwoon pour présenter ci sëriñ bi projet bii nga xam ne Ansaarud-Din Kaolack daf ko waroon a euh, sémb muy tabax chaise bi chaise yi groupement Ansaarud-Din Sénégal yëpp fédération yi bu nekk dafa tabax chaise boo xam ne complexe lay nekk bu am maanaa yu bëri yoo xam ne dana dëpp xadratul ibrahimiya léegi nag ñun ñu àgg ci waroon a def chaise ak li ci ànd yëpp te yàlla dogaloon mooy demeewut mën a jënd terre wala man a jënd suuf pour def fa loolu sëriñ bi moom bi mu ko yëgee comme suñ membre la moom moo jiite yi waaye comme jàpp na ne membre yi ansaaru diin ñu waxoon moom mooy numéro un ansaaru quatre membre numéro ci àddina moom lañ ko jox te euh, ñun ñu ngi koy jëndee ñeenti téeméer deux cent mille la joxe keroog biñ koy defaral bosom ne moom mooy première yi taalibe Baye kon ñun jàpp nañ ne liggéey bi sëriñ bi mooy première bi biñ waxee loolu mu ne déedéet fu ñu koy def foofu du doon problème ne ma kër a ngi fii boo xam maa ko jënd doom law na ma suma xaalis may naa leen ko jox naa leen ko pour ngeen liggéey ci mayut ko benn jëmm nag organisation bi la ko may ansaaru diin incha allah ba ilaa yawmi diin gur bu fi ne di liggéeyal ansaaru diin ñooy amee loolu di ko saytu mu jox ñu loolu léegi nag ñu bugg ci jublu liggéey ko projet bi bi nga ko xoolee ñu gis ne complexe la war a nekk dafa war a am chaise bi fi ansaar di di toog di liggéey maqaram dafa war a am fu ñuy liggéeyee dafa war a am fu ñuy jànge loolu complexe bi dafa war a jël jàngukaay liggéeyukaay ak fi ak ak bureau fédération bi loolu bi ñu ko présenté projet bi bureau bii nga xam ne ñoom laa ànd ak ñu seq liggéey bi nga xam ne kii toog ci sa wet euh, càmmooy Mouhamad Lamine Ndaw lañ koy wax moo jiite commission d'organisation groupement bu Kaolack kii mooy Rida Oustaz Barham Diop moo amee commission finance bi moo ñuy utali dërëm dërëm yi yi ñu war yi waa membre yi ansaaru diin yi war a dajale pour def loolu moom lañ koy jox moo ñu koy saytul lépp nag dana dem ci liggéey bi incha allah dajale luñ kenn xaalis nañ ko dana pour liggéey bi la Rida mooy saytu loolu kii mooy Ajjuma Diop moo amee. éducation ak formation comme dafay am jàng jàngale moom moo amee commission boobu As Thiaré moo ci topp docteur As Sarr moom moo amee commission scientifique bu groupement départemental de Kaolack suñ jàllee suma gannaaw ci jigéen ñi maa ngi ànd ak présidente euh, Lalla Fall Mariama Fall ñu di ko wax Lalla Fall moo jiite femme de la fayde bu département Kaolack mais bu réseau national Sénégal yëpp moo ko jiite mu ngi ànd ak euh, adjointam euh, soxna Hélène Sall te suñu secretaire général adjoint la adjointe la ak euh, Kewe Ndaw euh, ci sama loxo ndey joor nii Baye Omar Gueye moo amee relation extérieure donc suñu fédération bi ñi ci bokk sa nekk ci bi ci Kaolack mooy coordonné suñu diggante seen diggante ak bureau bi yi ñuy soxla pour ñoom ci moom lañ koy jaar ñun ñoom yi ñuy soxla ci ñun ci moom lañ koy jaar ñun ñu joxe ko loolu moo ñu indi woon te daal dañoo ñëwoon pour wax sëriñ bi dañ koy dañ koy gërëm ci ci may may bu rëy bii mu ñu may nga xam ne moom def na li war yépp lii ndoolal la dañoo jàpp ne lii ndoolal la moom defoon na lépp ndax moo fondé waat ansaaru diin fondation bu bees bii ñuy doxee ñu gis ne yokk na mbir bi yokk na liggéey bi mu ñu jàppale ci mooy luñ luñ yëkkati mu dugal loxoom lu luñ yëkkati mu wax xalaatam ba àgg ci may ñu titre foncier bii nga xam ne suñ ko waroon a jënd war na coûter ay millions mu maye ko donc dañuy gis ne suñ benn membre moo joxe ay million pour peine bii ñu ñëw pour gërëm ko ci loolu Oustaz Babacar ñaan ko ndigal ci semb mi ñu jëm waaye bëggalee ko ci mbooloo mi dajee nañ ne sëriñ bi daal mënuñ koo fay mënuñ koo delloo benn njukkal lu li ñuy def fii ñu tuddee ko ko loolu moom surprise la ñëw naa fi ñëwaat fii waaye masaluma ko ci dara bëgguma woon mu mel ni lu ma ko neexalee la mbooloo mi ñoo ne lii mënuñ ko tuddee ko du bi kon complexe bi complex xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ibrahima Niass noonu lay tudd moo moom département euh, réseau femme de la Fayda ci biir ñu def transformation yi mu am daara alquran bu ciy nekk ak daara majalis buy dimbale mag ñi nga xam ne way nañ dugg ci classe di jàng ak euh, ak ku ko soxla rek te bokk ci faydu bi ñu dimbalante ñoom ci jàngal leen ci leen ci seen diine ak seen li ñu war a taxawee daal lii daal bu fekkee bëgguma guddal dara te bàyyiwuma dara su ma bàyyee dara eh, danañ complété waaw détails yi complexe bi xalifa bi lañ ko tuddee léegi section bi féminine bi di amee dañ koy tuddee yaafaati asta ndax nit ñi ñëpp moo bokk nañ maase ci tombee waral ay gaaf comme moo fi jugee yàggut te mbiram jigéen ñi la delloo ko ci njukkal jaadu na ñu ne kon ji eh, section jigéen ñi dañ koy tuddee Seyda Fatimatu Zahra ñu ne section école bi daara ji ñu ne oustaz Ibrahima Mahmoud Diop lañ ci proposé moom it jàpp nañ ne du luñ ko neexalee lu mu mérité la yéen ñu gën a xam ndax yeneen ñu njëkk a juddu yéen ñu njëkk a jàng xam nañ li mu def ci xam-xam ngeen fekkee ko ñun biñ juddoo léegi yàggul liñ ci fekkee ko néew ak position bi ko Baye Niass joxoon ci jàng ak jàngale ak xam-xam ba pare mu mujj mu mu mu fi jugee fekk moo jiite ansaaru diin national. doon président bi ñu ne kooku tamit dëgg dëgg njukkal ko ci jaaru na ñu bokk d'accord ci tur yooyu complexe bi lu ci war a am rek danañ ko ci yokk bu waree am tur danañ ñëw li ci des gannaaw jox nañ sëriñ bi turi complexe bi li ci des képp ku ci war a amati tur ëllëg rek danañ ñëw ñaan ko ndigal laaj ko kan la joxe pour ñu tuddee ko. waaw bi ñu jugee ci programme yi kër gi complexe boobu nga xam ne yooyu ñu tudd yëpp moo ci war a am léegi ci ndimbalam yim ñu dimbale bañ mën a. sox-sox yi ba léegi dañu gis ne am na ci benn partie boo xam ne moom jox nañu fuñ nekk chaise biñ dëkk tey bureau ba di fa liggéey prévoir prévoiroon nañ ci suuf foo xam ne mën naa doxal mën naa doxal unité bi bu transformation bi femme de la fayda di liggéeyee ñu ne kon ce que dañuy nekk ba kër gële pare ñu yóbbu unité bi foofu walla unité bi mën naa tàmbali tey di liggéey ba fekkee ji Euh, ba fekki centre ba fa muy nekk ñu ne ankay mën naa nekk ndax ndimbal yi ñu sëriñ bi joxoon bâtiment bi mu ñu joxoon ñu dëkkee ko centre bi mën na faa nekkaale unité bi mën na faa nekkaale ñu ne kon dañuy réceptionné waat réceptionné waale unité bi euh, centre bi fii euh, monté machines yi ñu fay liggéey tàmbali liggéey bi ba ba ñuy àgg ci loolu mooy centre Fatima Zahra bi boobu dañ ko bëgg a inauguré le 8 août bii di ñëw kon buñ cay àgg bokk na ci ndigal yi ñuy ñaan mu valideel ñu ko ne d'accord nañuy inauguré la 8 août incha allah mboole may ndigal ñu yëgal ko kilifaay xadara bi yëpp euh, comme ni mu daan defee lu luñ ko mos wax wax danañu ne dem leen ci diw tudd kilifaay dëkk bi dem leen ci diw ak diw ngeen wax leen ko te wax dëgg yàlla loolu mooy bokk li mu bokk ak ñoom luñ ko ci wax mu ne ñu dem leen ci diw ak diw wax ak ñoom ñu ngi ñaan ndigal yi buñ jugee ci jotaay bi. dem seeti kilifa yooyu mu ñuy daan boole ku mel ni Cheikh Mahamadul Mahi eh, Niass ku mel ni imam Cheikh Tidiane Ali Cissé ak ñeneen ñi ñu daan ebal ñëpp kenn ku ci nekk nañ sol dem ci moom ne ko sëriñ bi liggéey bii mu ñu santoon fii lañ ci toll fii lañ ko bëgg a yóbbu loolu mooy suñ kàddu ñu ngi jërëjëfal ñu ñi ñi ànd ak ñëw waaye ñu ngi gërëm jërëjëfal eh, média bii nga xam ne ñooñu gunge média média di xadra nga xam ne fu ñu dem ñu dem ànd ak ñun ànd ñoom ñoom pour weer dara dañoo bugg lii taarix bàyyi ko dañoo bugg tamit topp mu gis ko moo tax ñu ne leen mën ñu gunge ñëw fekkee si lii lii mooy jotaay bi salaamaaleykum wa rahmatullah léegi nag ñu bàyyi la nag ki nga xam ne nii moo daral gan yi al ustaaz al ilaami Aboubacar Omar Roqi Niang ñu bàyyi nag moom ah, alhamdulilah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di leen dalal ci kër Mawlana al Khalifa Cheikh Ahmed Tijani Ibrahim Niass ngi leen di nuyu itam ci turam jotaay bii moo joxe ndigal li moo tax mu mën a am moo tax it mu mën a amee fii te liñ fiy wax it mi koy dégg kon da ngeen di jàpp ne mi ngi toog ak yéen ci maanaa waaye mi ngi toog ak yéen itam ci jëmm gërëm na taxawaay bi defe naa ne loolu mooy raayatul muna mooy dayob càkkutéef bi ñu doon ut di liggéeyal sa sëriñ mu ne gërëm na taxawaay bi loolu mooy liñ den ut euh, baax na jamono bu nekk ki la sant liggéey ngay ñëw di ko defal di ko rendre compte te loolu mooy taxawaay bi tey li ngeen nekk nii moo ko sosoon ndax Mawlaaya Cheikh al Islam moo ko sos moom moo Mawlaaya Cheikh al Islam moo ko beesalaat ndax moo waxoon ne nañ ko mbingale jamono waaye comme jamono day dox am na fu mu yegg sëriñ bi di Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass moo wooteaat beesal gi ci biir beesal googu nag amoon ngeen ci ay projet projet yi dem na ba soxla suuf suuf bi bu ngeen ko bëggoon a dajale ci keesu daayira gi defe naa da ngeen ci def ay million waaye ci mbaaxam ak lim xam ne ansaaru din bi ca boppu ansaaru din moom moo nekk ca bopp ba buñ den seet membre yi dañuy wax ne mooy numéro un membre yi kon du leen sant rek liggéey bi ne leen dem leen sàkki pexe waaye def ciy jiitu ci ñaan jiitu ci ci dooleem doola oo taalibe yëpp looloo tax nag wax dëgg yàlla moo neex a ànd ak ci liggéey bu nu mel ndax liggéey bu fekkee ni ki la ko sant dafa jiitu di def doola defal ànd ak man da nga xam ne lii muy wax nii njëriñ rek a ci nekk pour ñëpp alhamdulilah bi ngeen xamee loolu ba def ci li ngeen man yëpp euh, am na mbégte itam bi nga xamee ne complexe bi moom lañ ko tuddee ndax section yi ci génnee rek ñi ngeen ko tuddee ndam li dafay dellusiwaat ci moom teraanga ji dafay dellusiwaat ci moom ku wax say mawlaati Cheikh Fatimata Zahra ñu ne tuddee nañ ko section boo xam ne section féminine ci biir ansaaru diin la moom ci biir projet boobu Fatimatu Zahra lañ ko tuddee loolu defal nga ko mboolem doomi bàyyi yu góor yi sax njëkk yu jigéen yi ndax mooy ki nga xam ne moo njëkk a juddu njëkk a baax xàll yoon wi ñëpp topp ci bi ngeen ko ko tuddee nee ndam loolu moom moo ko moom ni ko moo ko bokkee ak i rakkam yëpp ngeen ubbi beneen section ci biir liggéey boobu tuddee ko oustaz Ibrahim Mahmoud Diop Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop doomu bàyyiw maanaa la ci mawlaay Cheikh al Islam Cheikh jàngal ko yar ko def ci moom li mu def ci moom ba nga xam ne fu mu teew bu représenté Cheikh Ibrahima ñu gis Cheikh Ibrahima ci moom amaat na loolu la Cheikh Ibrahima doon junj sax ca wayam wane dana dañ ko tàggatal kayit yi tàggatal ko xalimba yi mu ci def lu ko neex ba nga xam ne fu toog sax ñu ne ma ndax lu moomam déet doomi Baye jooju ñuy wax Ibrahima Mahmoud Diop buñ ko tuddee benn section boo xam ne ci mbirum jàng ak jàngale la jox nañ xala gi ki ko yettoon loolu itam beneen ngërmaane gum leen ci ngërëm gannaaw moom tuddee ñaar ñooñu nag mu ngay mujjee boppam mi nga xam ne moom lañ tuddee complexe boobu loolu nag euh, maa ngi wax foofu comme taalibe ne euh, am ngeen chance bu rëy am ngeen tawfiq itim ngeen xamee ne tuddee ngeen ko liggéey boobu yàlla moo def ne moom buy liggéey bëggul sax ñu tudd ko ci waaye ñun comme taalibe ñun waa ansaaru diin suñu rôle nag mooy ñun ñu koy delloo njukkal loolu nga xam ne laajut ko te soxlawut ko itim waaye fi ñu taxawee moo laaj ñuy def noonu am ngeen tawfiq loolu bi ngeen xamee ne tànn ngeen complexe boobu tuddee ko ko tuddeewu leen ko ko ndax dugal na ci loxoom. Mm-hmm. waaye da ngeen ko ko tuddee parce que mérit la. Mm-hmm. bopp taalibe bàyyi yëpp buñ tajoon ci barab tey buñ ne ku représenté Cheikh Ibrahim kuy wax ci turu Cheikh Ibrahim moom lay doon mbaakum délégué. comme mm-hmm. nag moom lay doon wala mooy délégué pouvoir bi bu boobaa moom la ñuy xool bët biñ doon xool Mawlaay Cheikh al Islam Haaj Ibrahim Niass ku ne woon bu ma gisee Cheikh Ibrahim Niass taxawee ko fii. wala waxal ko lii mbaa defal ko lii boo gisee Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima ñas war ngaa taxaw foofu nga xam ne moom nga daan taxaw ci liggéey Mawlaay Cheikh al Islam rawatina nag mu oo ñi ci ansaaru diin woowu ñi ci projet boo xam ne ONG la boo xam ne moom moo ko moom woowu ñi ci association boo xam ne moom moo ko moom daf ñuy oo ci liggéey boo xam ne Cheikh Ibrahima Niass moo ko sosoon muy jaar ci ay loxo ba tey mu lekk si egg si ci loxoom yàlla na ci yàgg lool mu teete euh, mbooloo mi ba nga xam ne fi baayam bëggoon mu yeggale ko fa dana ko yegg euh, bu ñuy résumé daal dañuy wax ne euh, moo autorisé jotaay bi te mi ngi dégg liñ fiy wax mooy ne kon luñ fi wax rek suñu yëkkatee jotaay bi rek te àdduwu ci mooy ne validé na liñ fi wax yëpp gërëm na kontaan na mu ngi leen di ñaanal tawfiix nee na ngeen wéyal liggéey bi moom mi ngi leen di dimbalee ñaan te loolu incha allah moom moo koy def ñun kàddu yi lañ jotali waaye ñaan gi moom moo koy def mësuta dañ waaye dana yokk ndax sémbu yi yokku na bu sémbu yi yokkee nag dañuy daal di tàllal loxo ki nga xam ne moo am lépp te amu ci soxla alhamdulilah euh, sëriñ bi itam mi ngi feddali ne euh, lii ñuy waxtaanee nii jotaay bii mi ngi koy suivre fi mu toog mi ngi koy dégg mi ngi feddali ne dana ci dugal loxoom itam dana ci dugal loxoom yemul ci rek joxoon na leen suuf euh, pour ngeen def fa liggéey bi waaye dana dugal loxoom itim euh, ci wàllu liggéey bi ak li koy mottali bu soobee yàlla euh, mi ñi dénk nag li muy faral di dénk ñëpp rek ne buñ ko ubbil buntab ku nekk ñi fëgg la laaj la ci mm-hmm. ndax comme am na liggéey boo xam ne mi ngi ko sos Euh, ñi fay defar lu jëm ci Médina ndax nee na bu ñu bokkee projet yi ci dëkk bi yëpp kenn ku ci nekk rek man amul kenn ci ñun koo xam ne man ngaa def projet yi nga xam ne war nañ ko def ci Médina yëpp benn nit mënu ko kon boole doole rek lañ mën a def pour euh, def liggéey yooyu boole doole yooyu nag buñ ubbee front yu bëri yoo xam ne ku ci nekk mën na cee jaar di ut li ñuy am pour projet bi Medina yëpp bokk ko dafay dal di am jafe-jafe dafay daal di sooxe loolu daal ne ñi koy dénk mm-hmm. euh, ci wàllu wut mi ñu am na yoon yoo xam ne mën ngeen koo am comme ansaaru diin comme association ansaaru diin na ngeen daan def ci euh, seen projet yi mm. xam ngeen ko mi ngi leen dénk yoon woowa mm. waaye buñ ko ubbi daal mm-hmm. ne ku fu nekk rek euh, ñu dem fa mm-hmm. uti ndimbal mbaa uti alal yoo xam ne mm-hmm. ju ñuy def ci projet yooyu la loolu ne itam mi ñi koy dénk ndax am na fond boo xam ne mi ngi taxaw ci wàll woowu loxoom nag nee dina ko ci dugal ni mu ci dugalee woon euh, dara dugal na ci terrain dugal na ci ñaanam dugal na ci lépp waaye teewul nee da leen topp yitim daan leen jàppale ci wàllu financement bi incha allah loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne moo jógee ci sëriñ bi ñu ngi leen koy jottali euh, di leen ñaanal tawfiq incha allah.